may apprécier te moom la dernier moom moom dernier moom moo ma engagé pas l'opinion. léegi loolu la wax fa écran bi. non non non écran bi procès du procès pour écran salle bu salle intelligente pas mu salle. salle indigène c'est la plus grande salle du tribunal de Dakar fa lañ àtte Khalifa Sall fa Karim Karim mm-hmm. mooy salle euh, bi fa lay nekk toujours tout le temps nekk déedéet da dañ koy lem après dañ koy lem dañ koy lem ah, dañ koy lem di ko yëg di wàccee ah. ça dépend dama ne la bu leen neexee mais parfois dañ koy lem laa wax non xam nga juge bi moo ne élage man néew moon salle bi de man juge sur les principes Moussa ah, man man je pas dans les factuels parce que man damay analyser rek. Euh, froidement la droit. bon sur euh, bon man saal bu dugg dugg naa fa parce que écran bu ma gis peut-être bokk bi ngay wax. voilà bon li ma bëgg wax foofu mooy. Euh, man personne fayal ko de bon maa ngi ci preuve yi bon man dama ne man am na Sénégalais bi nga taxaw naan ana preuve yi di tax preuve génnul même confrontation bi loolu ñu doon xaar ana preuve ma leen confrontation c'est pas un c'est pas c'est pas un de procédure wax seen juge bi jël kii en aparté jël kii en aparté ne leen kaay la ngeen xool ndax seen wax yi est-ce ndax li nga waxoon di wax mais c'est pas du du confrontation devant le bureau du juge du affaire génne deuxièmement devant le tribunal en matière euh, criminelle man su neexee samay preuve ma projeté ko et puis suñu culture beaucoup de culture américaine culture français yi ñooñu dañuy projeté muy leer ooy expert la tajal ma lii mais juge bi ne ko juge bi ne peut-être dafa jàpp ne lii peut-être c'est une c'est une affaire yi peut-être dafa jàpp ne peut-être rafetul ci bët ñi di ko gis. waaw waaw non d'accord mais dama def non huis clos bi dafa ne bu nekkee dafay dañuy troubler audience bi la dañ koy troubler. ou ou dañ koy troubler non daf ne bu nekk dañ koy troubler. wala mœurs wala mœurs waaw bu nekk dafa am article 258 259. non Pape Moussa xam naa daf ne bu nekk dafa am fait biir troubler audience bi wala day trou fait boo xam ne dafay troubler ordre public wala muy troubler bonne mœurs. juge bi mën na jël ordonnance. day jël jugement altay affaire bi ne nañ ko def mais moom moo ne outrepassé moom il peut outrepasser cette disposition ne bu ko teg il a donné l'ordre bu ko teg lu tax mu ne bu ko teg peut-être ils verser ça dans le dossier parce que gis dans une procès dans une procédure les parties ñëpp jox ko juge mooy àtte man de su ma mën suma preuve du ma ko jox opinion bi juge laa koy d'accord Amath après dinañ ci dinañ ci ñëwaat oui Pa Moussa c'est ça c'est ça d'accord ah, naa yow am da ngay tëgg bind jox juge bi. Ah, d'accord non en matière en matière civile en matière civile mais mais mais mais bii procès public la ñu ne la preuve bi c'est libre bu dee mënul nekk ndax mës dañ ko teggi génne nit ñi ñëw teg ay la yowin bu amoon mu am waay parce que pare nañ ba tegal la écran kooku kay pare war na pour ne la loo am génneel. Mm-hmm. fan nga déggee ci biir procès bi maître El Hadj wax loolu juge bi amul. amul ci biir procès bi. Mm-hmm. loolu loolu loolu loolu Sénégalais yaa ngi li ma jaaxal ci yow kay mooy nga ne le juge Omar Maham Diallo qui excellent magistrat. Mm-hmm. mais qui a la présomption de culpabilité. c'est grave. waaw mm-hmm. présomption de culpabilité. waaw waaw magistrat. waaw. et la présomption d'innocence. Mm. non dama non présomption de culpabilité boo déggee ma ne. non non non non non mm-hmm. présomption de culpabilité boo xoolee c'est c'est synonyme même de présomption d'innocence parce qu'on présume. mais tu n'es pas coupable. Je pas dit qu'ils sont coupables. On ne doit pas présumer une culpabilité. Non, si, on présume. C'est là qu'on qu arrive dans la barre. On présume qu'ils sont coupables. Voilà. Très bien. Mais pas Moussa. Pas Moussa. La mort, pas Moussa. Celui qui est au bon moment et au mauvais moment, qu'est-ce qu'il est C'est un suspect. Mm. waaw voilà moo tax moo tax. est-ce que être subi ça veut dire que tu es l' tu es l'auteur des faits non parce que tu es waaw ba tey présomption de culpabilité yow. parce que tu es au mauvais moment au mauvais au mauvais endroit. donc un non j'ai pas dit qu'ils sont j'ai pas dit dama ne présomption de culpabilité. gannaaw leeru ko te moom c'est c'est pas lui di àtte mooy àtte mu yóbbu la ci kanam tribunal. man man d'accord naa buñ naan Adji Sarr na andi preuve am ci instruction. instruction on a besoin de juste de charge. d'accord naa ku ne Adji Sarr andi preuve am ci commissariat wala gendarmerie foofu on a juste besoin d'indices mais nag procès preuve. très bien alors li muy motiver sa décision mooy mm-hmm. ko yi ñu ko laqal dugal ko sa poste yi ñu discuter devant Papa Moussa en tant que taskatu xabaar yow jàppoo ne c'était c'était <laughs> sëñ Mansour ah, Pape Moussa may ma bokk <laughs> sëñ Mansour jàppoon ne c'était l'occasion pour euh, Ousmane Sonko un homme politique qui aspire à diriger le Sénégal mu mu teewoon ci procès bi euh, pour que au moins moom également loolu nga xam ne Adji Sarr yëkkati na ko mu mën a wax sénégalais yi loo xam ne dinañ ci mën a comprendre lu koy dindi waaw am na ñu xalaatee noonu lu koy dëggal man li ma gëm te jàpp ko mooy ni mu demee nii moo gënoon sedd ci euh, la stabilité en fait de Dakar parce que mënoon na ñëw li doon xew xewaat jaaral fii moo fi jaar xëccoo et cetera mu jur leneen quoi te man li ma gëm laa la wax soxna si mhm. maanaam deux ans yi weesu man su ma njëkkoon am preuve maanaam su ma su ma amoon preuve avant le jour yi man dinaa bokk ci journaliste bi koy njëkk a génne man parce que man dama bokk ak maître plateau yaa ngi dégg mun nañu carrément vidéo am na audience spéciale lañ koy def yaa ngi dégg ba pare dañ koy projeté ce sera un direct loolu moom moo ko est-ce yaa ngi dégg donc in fine film la boo xamante ne bi saful naqari saful neex daara luy ay firnde amu ci dañoo ñëw dañu décrire comment ça passe. mais mais Pape Moussa est ce que une vidéo Sëriñ est ce que sëñ Mansour. mais qu' est ce qui m' arrive ce que tey euh, vidéo dañu am benn Pape Moussa ci kër gi ba ma lakkal aussi hmm. est ce que aujourd'hui euh, vidéo wala ojo rek moom moo mën a prouver le viol. mais ça pouvait un début de preuve. oui un début de preuve ba pare ñëw dañ doon clairer na partout ne bàyyi leen bañ dem ca jour procès ba les gens s'attendaient à ce que ñu gis Ousmane Sonko à l'acte ndaw si di bañ di yuuxu et cetera les gens s'attendaient à ça man moo tax jour boobu li may xat xat xat xat xat dama ne damay dem soxna si ma toog fa deux heures de temps ay wax ju bon kese laa doon dégg wax dëgg na yàlla ak ay question yoo xamante ne c'est question questions mal placées nday xat di ñaay di recadrer le maître di demander au euh, au président du tribunal président kii daf ma war a respecter. c'est un procès de mœurs ñoom procès de mœurs la d'accord mais projet de mœurs boo xamante ne bii ah li sénégal yi gis mooy moral lañu gis moral lañu ñu ba pare bu ñu bëggee mettre en opposition bu ñu bëggee euh, faire comprendre aux Sénégalais en opposition non on ne pouvait pas projeter parce que ça peut heurter non maanaam ndaw si det maanaam li mu doon wax non seulement man ak Sénégalais yu bëri gëmuñu ko mais li doon wax di ko dégg moi je pense que tegoon film bi sax moo tax ne wax parce que am na ci ñoo xamante ne bii ils sont psychologiquement ils ne pas bien. Mm-hmm. am na yoo xam ne bu ñu ko déggee c'est pas demain lañuy ñuy taxali ko moom. est-ce que yaa ngi dégg mais wax ju bon yu ne keroog ndaw si wax na ko donc bu ñu bëggee gëmloo tey jii aujourd'hui non mënuñu ko woon teg parce que en réalité man de wax dëgg neex yàlla dama fa ci suba si de mais ña ma fa fekk ak statut yi ma doon xool ak net bi ma doon xool ak rajo yi ma doon dégg dégguma fenn fenn fu ñu ne maître. s'est adressé au président du tribunal pour lui dire que on a qu'à il veut qu'on projette tel film il veut qu'on écoute tel audio et cetera et cetera il ne l'a pas fait il ne l'a pas fait yow déggoo ko monsieur Gaye est-ce que dégg na ko ko <laughs> monsieur Thiam est-ce que dégg na donc on a voulu mani euh, manipuler soxna si jusqu'à preuve du contraire li may wax nii ci diggante bi bu changé man damay génn carrément ne preuve ngi nii teg ko ci table man loolu aw ma ci benn complexe aw ma lu ma ciy ragal mais soxna si preuve amul léegi nag bu dee da ngay àtte loo xamante ne amul mënoo ko prouver c'est ça la vérité boo bëggee àtte loo xamante ne c'est une feuille blanche challenge feuille blanche soxna si kenn munu koo prouver léegi nag bu nekkee procès moral lañ bëgg a def loolu moom wax dëgg neex yàlla kon on a qu'à fermer nos unités euh, nos nos nos facultés de droit. section ENA je pas et cetera magistrature non ñu jéem a xool leneen lu ñu fay jàngale. mais wax dëgg na yàlla une juridiction un tribunal c' est des preuves et on dit le droit bu dul loolu non leneen. et donc buñ buñ la déggee procès moral c' est comme si euh, da nga da ngay dëggal wala bokk ko li li Ousmane Sonko di wax ne c' est un complot qui a été quand même orchestré. xam nga pour. non complot loolu ñëpp xam nañ mais complot bi c' est post salon de massage. c'est ça la vérité nee naa wax naa la ko fii en préambule Ousmane warul woon dem foofu te ba keroog Sénégal di jeex loolu laa gëm waru fa woon dem mais c'est pas parce que dafa dem nag ay nit bëgg a def borom ndoll xam nga tey lu doon neex tey soxna si maanaam tey lu doon dal sama xel dëgg dëgg dëgg les 14 ñu wax ñu kan moo def. diire eh, war fa woon dem. on oh, ah. ma ne wax nga ko war waru fa war dem et c'est le début mi nga xam ne moom moo indi moom moo indi. situation bi yëpp mais aussi le gouvernement a fait une conférence de presse pour rassurer les chancelleries que dinañ def un rapport d'enquête 14 morts soxna si y a un rapport du département d'État américain bu naqarlu le fait qu'on qu'on s'est immiscé de façon arbitraire dans la vie privée de quelqu'un documenté du département d'État américain parce que dañoo toog un an après Sénégal defu rapport ñu génne seen rapport je pense man maa ngi lire rapport bi le avril 2